tey nga dellu si wat si woote bi. woote bi li ko waral woote bi sax woote bi sax woote wu ma ko fii ci kër Daaru Rahman maa ngi ko woote woon ci siège ba permanence ba mais situation yi peut-être mbas mi ni mu demee mais itam dafa am leneen lu ci xew encore parce que bi ma wootee ci permanence bi ba pare dama woo ku ñu wax Galo Ñaa moom mu yoroon caay permanence bi. galawaat ma biig ci guddi xamal ma ne permanence bi mënuñ ko ubbi ma ne ko lu tax mënuñ ko ubbi mu ne ma mbas mee tax permanence mënuñ ko ma ne ko da wax ne Cheikh Abdou Bara Dolly moo la wax mënuñu ubbi bi galo mu ne ah mu ne ko bu Cheikh Abdou woon permanence bi da nga ko ubbi te Cheikh bi fayul permanence bi permanence bi kenn koy fay mooy président Pape dee moo ci def alalam benn député bu ci def sa ñaar dërëm amul kon ki gën ndaw ci bokk gis-gis su soxlaa permanence da ngeen ko war a ubbi galo ne ma noonu permanence ne ko ne ko nag bu fekkonte ne du problème mbas mi damay dajj permanence bi loolu moo waral ma waar responsable yëpp ne leen nañ leen daje fii fii du waa Touba du waa Mbacké rek responsable boo gis départemental bi ñoo fi daje. parce que exemple ñan waa Madina ñi ngi fi ci exemple laa lay jox waa Touba Fall ñi ngi fi waa Dalal bu ñi ngi fi ñi mënta ñëwit yëbbante nañ ne ñi ngi ci suñu gannaaw ñi ngi ànd ak ñu liggéey bi. Touba commune bi ma bokk muy Touba ñëpp ñëw nañ ñi war a ñëw ñëw nañ parce que ñi ñëw. ak waa Mbàkke soxna Kiné mbay yebal na fi délégation honorable député maa ngi koy félicité ci loolu parce que fu ñu gestoo danañ ko gis mu taxaw sunu wet ñun nag yàlla dafa dogal ñuy ndawi parti bi mais gëmuñ ko yàlla bind yàlla rek lañ gëm ak suñu liggéey parce que fii lu fi waaye am da nga ko ñafe ba am ko kenn xëyul rek doon li nga doon Cheikh Abdou Bara Dolly man dama koy cité du ma fi ne di wër ci turam laa jaar directement Cheikh Abdou Bara Dolly bu parti bi yàqoo ci diwaanu Mbàkke Cheikh Abdou Bara Dolly moo tas parti gis mooy yàq parti bi ci fànn yu bari bi ci jëkk mooy Cheikh Abdou nawlawut kenn bi ko ñaareel Cheikh Abdou yëgut kenn bi ko ñetteel Cheikh Abdou du wax dëgg lépp lu mu wax rek c'est faux commune yi nga xam ne dañoo ne ci département Mbacké daf ne woon commune bu ne jox na la 500000 barki démb maa ngi ko seetaan ITV Cheikh Abdou Bara Dolly ne commune bu ne un million la la jox ak la cay ànd yónnee naa ojo bi Cheikh Diagne. na loolu tey ñii na ci communes yi bu seen responsable ak seen militant yëgee ne jox nañ seex Diagne 1 million ak li ci war a ànd Cheikh Diagne indi 126 000 francs yu mu ko xam nga ne lu ñaaw ngoo ci ay élections. si ban cadre la woon. présidentielle yi ñu weesu nii nee na jox na leen un million ak li ciy ànd neena génne na 30 millions def ko ci département Mbacké te waxul dëgg parce que li tax waxul dëgg man responsable bari bu ñuy wàcc maa leen di may paas bu ñibbee barke borom Touba. deuxièmement nee na génn na fukki oto dugal ko ci campagne Idriss sekk bi loolu du dëgg ñaari otoom la ci dugal oto yi ci des président Pape Diop moo ko léewoon ci Sénécartour ñi ci des responsable yi kuy ñëw say oto ngay indi man bu may ñëw tous les jours damay jël taxi dem bu may ñëw jëlaat si ñëw. moom mooy seen coordonnateur d' abord parce que euh, loolu ku nu fal wala ku am yelleef moo ko moo koy def. cest diir dire coordonnateur mais du coordonnateur département waa département ba mooy diglu mosu ñoo daje fenn fal Cheikh Abdou moom kay daa xëy rek na maay coordinateur département bi Touba googu mu doon coordonné Cheikh Abdou mënut a coordonné guy sew gi nga xam ne fa la dëkk quartier boobu Cheikh Abdou mënu koo coordonné parce que li tax mënu koo coordonné nit ñi boo leen yëgut faale woo leen lijjanti woo leen ku la wax nga ne ko wool président Pape Diop du ma sab responsable responsable Pape Diop nga talu garaaw lay def président Pape Diop coup d'état la koy monteel coup d'état lay monteel président Pape Diop mooy lan man mi di wax yow barke Seexul Xaddim woo na ma këram ba ma toog Cheikh Tidiane bu Mbàkke toog Cheikh Tidiane Dia mu ne ma booba ñi ngi war a jàppale président Idriss Seck kër Sëriñ Baara Doli lañ jóge mu ne ma dama laa soxla kër ga ma jël tax fekk këram ci saal bi ma fekk ko mu toog Cheikh Tidiane Dia toog mu ne ma ndax man nga àndal ma ne ko luy loolu mu ne man nga àndal wala Pape Diop ma ne ko man xam nga ni Cheikh Abdou mu ne ah ma ne ko boo xëyoon bàyyi Pape Diop suba bu nga wane da ma dégg man ànduma kenn ci politique gëwuma kenn ci politique ku dul président Pape mu ne ma waxoon nañ ma ko bépp responsable bu muy waxal da ngay ànd ak moom fare ci gannaawam mu respecte la teg la fenn soo àndee ak Pape Diop mu won la gannaaw coup d'état bu la koy montel ba bu paree pour war a génn parti bi fekk am na responsable yu doy yu man àndal pour génn parti bi bu fekkee li muy wax dëgg la nee na moom mooy gagné département Mbacké nee na ku ànd ak moom gagné ku ànd ak moom doo gagné na dëggal boppam démissionné bokk gis-gis berlang ak boppam benn conseil municipal mënu ko am lan moo tax lan moo tax toujours moom la dégg si média yi moom moo gën a présent si bi ndax yéen da leen suul wala. Cheikh Abdou non seulement suul mais dafa iñaan Cheikh Abdou bëggul ku tekki dara Cheikh Abdou li nga doon sax du la ko nag nangoo reconnaître boppam rek del diglu émission yi muy def yëpp man a man rek lay wax maa gañe maa joxe maa def man a man a ku ànd ak man gañe ku ànd ak man doo gañe mais kee bokk gis-gis ana bokk gis-gis su boobaa ana ñu moo koy def département Mbacké bépp ci sama tur parce que jox nañ ma seen kàddu Cheikh Abdou Bara Dolly bis bu ko Pape Diop jiitalee ci liste fii ci département Mbacké ñun waa boo gis département bépp danañ battre campagne sanctionner liste bi. bu ñu toll nii ngi seen loxo. loolu na maa ngi ñëw mais mais mais tey ngeen di xiiroo ngaayoon est-ce que ngeen ko ñàkk entre temps bu PDS yeewoo. xiiroowuñ ngaayoon PDS dafa war a yeewu PDS daa war a yeewu parce que PDS dañuy nelaw dañuy nelaw te suñuy frère lañ parce que Cheikh Abdou ay nax la lalal Ablaye Wade da ko nalal lalal ndëgg sërëx parce que da koo gëmloo ne 2024 bu Karim Wade ñëwee moom laay jàppale kon jàppale ma jot ci département bi te bu jotee ci département bi li muy njëkk a mooy day jël département bi jaay ko Macky Sall parce que wax na fi ne Macky Sall newoon na ko bul campagne ma jox la 1 milliard Macky Sall bu joxoon Cheikh Abdou 1 milliard pour mu bañ campagne billahi wal kitaab bu wàccee ñu ko plainte yóbbu ko ci yoon parce que amu ci droit. yéen fi ñu toll nii Euh, maanaam lim leen jiitee da ngeen ko bëggul wala kes ce qui se passe lan moo xew dagg dagg non ñun bañuñ ko ñu ji ndax ñun xolu kañaan bi ko dal ñun daluñu ñun amuñu problème parce que man maa monté bureau bi Cheikh Diagne mi bureau man maa ñoom Madina monté ko biñ commencé monté bureau yi ma monté fukki commune ak benn booba mi ngi et Amérique mu woo Galaña woo ma oto bi nga xamante ni moo ñu ko joxoon ci campagne. oto Galaña moom lu mu doon si parti bi. Galaña nee na mooy chargé de sélection parti bi mais mosuma gis fu ñu dajee fal ko loolu na leer. moom daal dëgg-dëgg man Gallo intéressé ma parce que sikkim la gestoo ko yóbbaale Gallo waxu may waxam Cheikh Abdou Bara Dolly laay wax li muy waxal bokk gis-gis te du dëgg na ko arrêté Cheikh Abdou Bara Dolly moomuñu juruñu jënduñu yaakaaruñ ko te amul base politique te bu bokk gis-gis daanoo ci parrainage moom moo ko daane parce que parrainage yi bon la yóbbul bokk gis-gis mboolem ñu yóbbu parrainage moo ci yées le parrainage moom moo daane parti parce que parti dafa yaakaaroon ci moom am lu ñu espérer ci moom ndeke dara. na arrêté yi muy def moomul parti bi boo ñu waxee mu mel ne benn ñebe ci cin moomul parti bi na arrêté yi muy def moomuñu juruñu jënduñu na bàyyi li muy wax te dëgg na ko bàyyi. mais choix choix bi Pape Diop def. Euh, pour pour mu présenter leen assemblée moom la wala. loolu xam nga politique moom moo demee noonu toujours nit dana fal nit ba pare par erreur day am mais moom fayut naar bi xoromam moom li ko Pape Diop defal ci kaw suuf buy wax sa tudd Pape Diop du tudd bokk gis gi man rek lay wax. moo tax nag ñun liñ koy ñaan bis ni tey ñun waa département Mbacké rawatina commune bi ñu bokk muy commune de Touba Cheikh Abdou Bara Dolly na xam ne jiiteetul commune Touba ñun bis ni ki tey président Pape Diop képp lañ xaj ci gannaawam moom la ñuy àndal liggéey àndiñoo kaneen fu mu xam na fa jëm mayatuñ ko nag muy wax ci suñu tur lu dëgg saa su ko defetee yéen ñëpp digal naa leen na ngeen dem ci rajo yi ak presse bi weddi li wax xam la askan wi na dëgg da leen di tromper li mu leen di tromper mooy sant bi mu sant la bëgg a tromper nit ñi sant wi la bëgg a tromper nit ñi te loolu c'est faux ab politicien la du homme politique de politicien la toujours ci njuuj njaaj ak ki lijjanti ak i galgal ak i taqalee ki tappale rek ci la nekk li muy wax lépp barke alxuraan dara du ci dëgg gañewul dara ci département bi waxuma la 30 millions mais 5 millions yi président Pape Diop mayoon ci élection yi ne yéen waa bokk gis laa ko may dama koy laaj 5 millions yooyu ko Pape Diop est-ce que moom la jël yët ko gouverneur wala déet bu fekkee du 5 millions yi nañu wax suñu 5 millions fu mu dugg loolu laay laaj lii ci gàttal. gouverneur ci cadre ban ban cadre. ci Covid bi nee na 5 millions dégg nga 5 yi fu mu waxee wax ko le président mayoon nañu 5 millions te man man gisuma un franc man ñii gisuñu dara. commune Dalal Ngaaw bii 26000 la jox ñi joxu ko leen dara ñoom jotuñu dara alors foo jógee toog. ne ci presse mel na yow yaay bokk gis-gis Cheikh Abdou mënut a dajale lii département mënut a woo kenn comme woo doo ko wuyu ñaari nit mënu koo dajale. toog ñëpp ay responsable la. ñëpp ñu ñi ngi jóge ci département bi ak commune ci àll bi. ci da ngeen def assemblée générale pour destituer ko maanaam pour jëlee ko fi. dañoo def assemblée générale pour xamal askanu Sénégal ne Cheikh Abdou Bara Dolly du waxkatu dëgg benn. dañoo def assemblée générale pour xamal président Pape Diop Cheikh Abdou ay wor lala lala ci suuf mi ngi lay waaj a coup lay nangu parce que responsable yi ku jox mun la àndoog man Pape Diop nga àndal. loolu ku ne dégg na ko ku ko woo mun la wool Pape Diop liggéeyal leen moom ngeen di liggéeyal soo nangoo raasi wu ci gannaawam nag mu mu yëkkati la ci kaw nit ñi di la favoriser di la di la teg ci kaw nit ñi seet koo xamante ni mënut a am benn nit nga bëgg koo tëkkalee koo xam ne yow sax parrainage man maa ëppale Cheikh Abdou Bara Dolly parrainage li ma yóbbu te aw ma benn moyen maa ko ëppale parrainage parce que li mu yóbbu moo gën a bari mais li mu yóbbu baaxul. ndax da ngeen di woo euh, président ñu ma bu dëgg jotee na taxaw trasé na xam ne waa Touba na xam ne waa departement Mbacké pare nañ ci Cheikh Abdou Bara Dolly waxuñu mu jiite ko ci liste mais bis boo xamante ni dugal na ko ci liste boo xam ne turóom a nga ca ñun danañ battre campagne sanctionné liste bi kooku na leer. local yi di ñëw nee na moom mooy gagné département bi na berlang ak boppam bu amee jomm xam nga nee na Khalifa Sall amul jom moom moo ñàkk jomm moom. moom moo amul lu muy bañ moo amul lu muy jomb moo amul lu muy ruus parce que ànd ak say nawle ànd ak say nawle di leen néewal doole di leen galgal foo toll di leen war ne tekkiwu leen dara loolu nit ku koy def jëro amoo référence man maa ko wax li ko kenn ñi mu tax maa koy am na ñu war na ñëw ci réunion bii ñëw fekk si ko bi ma leen wooyee dañoo daw heure boo wootee ci Cheikh Abdou dañuy daw duñ ñëw di jàmbat ay bopp yu métteeg ay tànk yu métteeg lu ne ñu jàmbat la ko duñ ñëw parce que dañ ko ragal gëmuñu seen bopp ñun liggéey luñ Cheikh Abdou Bara Dolly président Pape Diop la ñu liggéeyal na leer. su ma la déggee su parti bokk gis-gis Cheikh Abdou dafa am ay militant am Pape Diop am ay militant am si département bi. moom moo installé loolu c'est-à-dire ñi ànd ak moom da lay gëmloo ne la man nga àndal wala Pape Diop nga àndal soo ànd ak moom mu dugal la ci biir jàppale la parce que day préparé coup d'état la koy préparé li muy wax président Wade damay dénkaat waa PDS ci département bi dama leen di conseil di leen dénk lu ma la wax ci politique fay ko bor PDS coup d'état bi mu leen di laal dafa bëgg nangu seen département PDS ñoo gañe département Mbacké nañ am fayda ju day ne bu élection jotee nañ dëggal seen bopp teg seen bu ñu nangu mu leen di jiite. galgal bu ne nag mi ngi koy def ci président Wade pour ñu mu jiital ko nañ lànk ba tëdd ca naaj wa ñun waa bokk gis-gis ànduñu ak Cheikh Abdou Bara Dolly bu ko PDS ànd ak moom na xam ne danañ ànd nërmeelu mais ñun ànduñu ak moom na leer. loolu la ñuy wax fii mu leer nañ amuñ ci lu ñu wër-wër na léegi nag enfin enfin lan ngeen tënk seen assemblée générale lu ngeen tënk. liñ ci tënk mooy bis ni ki tey ñun ak Cheikh Abdou Bara Dolly na jaar nii ñi jaar nii te bu mu waxati suñu tur na leer bu mu waxati suñu tur. am ngeen majorité bi am ngeen quorum bi quoi. mënut a dajale ñetti nit man bu ma wootee département bépp wuy ma parce que man yoruma xaalis mais yëg naa doomu aadama yi ñoom ñëpp a ngi nii yëg naa leen ngi leen di nemmeeku guddi ak bëccëg commune ci àll bi yëpp maa maa ko monté te oto bi mu ñu joxoon ñu koy mën daan nangu oto bi nga xam ne gëmul parti bi. Pape na li ngeen def président Pape Diop. bu koy yëgul dana koy ndax ñun ay responsable lañ ñun doxuñ di sukkandiku na Pape Diop yëg na ñàkk ñun suñ bopp la ñuy liggéeyal ñun suñ département la ñuy liggéeyal ñun du Pape Diop moo ñuy tànnal ki ñuy jiite ki ñuy jiite ñun ñoo koy tànnal suñu bopp ku ñu naw loowu tegoo ñu fenn séq ñoo ngi yow dara liñ koy ñaan ci njekk ak teraanga na jar gauche ñu jaar droite séq ñoo ngi moom dara na dem ñu dem